ci la ko député yi di woote l'observateur ne du yomb ndax ku jéggi takku na ba dëgër ne du jàll yéenekaay bi ne dana leer ndaxte kii di Macky Sall ak ay ñoñam noppi nañu ngir doxal seen stratégie su ko defee ñu forcer parrainage bi ñëpp ñi nga xamante ne bëgg na nañoo doon candidat ci élection présidentielle gi ñu jëm ñu jëm ci quotidien mi ne beneen alxemes ca Soweto le 23 juin alxemes la woon le 19 avril naka noonu alxemes la waaye nag li ñuul ci soo bi moo di xupp yi tukkee ci politique bi ay syndicat ak it ñu fare ci société civile bi démb mboolem député non inscrit yi amal nañu ab ndaje ngir ñaawlu parrainage bi ba noppi sàkku ci kilifa diine yi ñu dugal ci seen loxo balaay làmbaaya ñaaw député bi di job si ne Macky Sall la àndal de waaye nag àndul benn yoon ak parrainage bi les échos ne kujje politique bi jàpp na date bi bu baax le 19 avril du yomb ci buntu assemblée nationale maître El Hadji Diouf ci biir yéenekaay bi ne Macky Sall accident ko tax a yegsi ci bopp réew mi na xam ne accident moo mi ngi sàkku ci askanuk Sénégal yépp ngir ñu jóg gàntal projet Macky Sall bile Sud Quotidien ne kuje politique bi takku na ba dëgër Macky ci wàllam di woote dal ci yéenekaay yi di enquête ak it Sud Quotidien laas xamal ñu ne njiitu réew mi noppi na ngir xoolaat yenn ci modalité yi ñeel parrainage gi waral coow ci jamono ji yéenekaay bi ne société civile ak yenn ci ay personnalité publique tàmbali nañoo waxtaan ak nguur geeg ku gi ngir rek dal am ci réew mi Vox Populi ne en tout cas daal parrainage bi tax na ba mi jaxasoo fi mu ne Taal source année M23 moom ci parrainage bi nguur gi la ci àndal dafa mel ni li mu ciy wax yépp pale moo ko koy dicté pale le kafay buum di buumi di Macky Sall mu ngi waat ci xëtu njëkku yéenekaay bi di réew mi sama naataango fësal li tax ba moom Macky Sall du dellu gannaaw ci projet bi firnde gi réew mi ne APR taxawal nañu seen stratégie ba noppi le 19 avril lépp dana leer topp leen ma ci biir yéenekaay bi di l'Observateur ak kenn ku bokk ci kujéeg bi Idrissa Seck mi taxawal conseil de guerre ci biir partem di réew mi ci samedi bi ab séminaire la idi woote ngir defar programme boo xamante ni bu ko waxee sénégalais yi kenn dootul bëgg daray Macky Sall jëlee fi njiitu réew mi la bëgg ci atum jaaree ko ci programme bu dëgër ba tax na yenn ci bànqaasu parti bii di réew mi idi nee dana leen yeesal docteur Abdourahmane Diouf moom moo nar a doon chef de guerre bi bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi di l'observateur yéenekaayu groupe Futur Média bi jot na sax siiwal yenn ci axe a

lacrymogène démb di syndicat yi jàngalekat yi seen ba ca Ziguinchor police moo tas la yéenekaay bi di laas xamle juróomi jàngalekat ci ñoom jëlee nañ ciy gaañu-gaañu ña police teg loxo laata ñu di bàyyi ci noonu Sud Quotidien ne police mayul dara jàngalekat yi démb ca Ziguinchor marche ba préfet ba daf ko tere woon waaye teewul jàngalekat yi mobilisé wu Umar Wali Zumaru ne xolam jeex na ndegam nguur gi moo dem bay dóor ay lacrymogène ay la bët yem ba noppi nag artu autorité yi ci bataaxal bu mu yónnee waa Sud Quotidien direct grève yi daal bari na fii ci Sénégal lépp nag di ay journée chômée payée ndax ñi nekk di grève ci jamono ji ay liggéeykatu nguur gi lañu weer wu nekk ñu fay leen yéenekaay bi ne dañu leen war a sax toppee alal gu léwul maanaam bien mal acquis waaye nag nguur gee ko def de moom mi nga xamante ni dafay xaatim ay accord ba noppi ne pat bañ leen a respecté libération des lusiat ci interrogatoire bi ñeel Maxtaar Joxaane mi ñuy toppee terrorisme ci kanamu juge d'instruction bi la xamle ne daje nag Oumar bi ñu gën ko xam ci turu Omzen ñaari yoon Omzen ci al ba la bokk yoof la ñu daje ñaari yoon mu won ko ay vidéo yu benn la den nee na ci ndaje gi ñu doon amal ca Petit Mbaaw dañoo xawoon a xaajaloo ndax ñii dañoo bëggoon a rejoindre Al-Qaïda ca des Daesh moo leen gënaloon Zayib Ba ñu gën ko xam ci turi Ibrahima Ba Moustapha Faye Moussa Aw ak Abdallah Coulibaly ñii ñoo bëggoon a dem Al-Qaïda ñi ci des Abdallah Ba Assane Diène Abdou Khadre Fall ak Moustapha Diop mi ko joxoon soixante cinq mille euros ne Daesh la ñu bëgg lépp li Mactar Joxaane ne tali ci kanamu àttekat bi mu ngi ci biir yéenekaay bi di Libération ñu tàbbi ci tàggat yaram ak record mi ñu xëy xamal ne Balla Gaye Modou Lo du am ci saison bile ndax Balla bëggul quatre-vingt-dix millions yi ko Leewtoo production proposé ngir mu bëreek Modou sunu làmb moom xëyee écurie Fass ne Gris Bordeaux dafa ngiroo ci jamono ji Papa Sow nekk di xuus ci coono yéenekaay bi nag sampap laaj ne ndax la woon Fass dafa woon ni yendook jàmm